loo xam ne nii. léegi nag ñooñu dafa transversal. Ah. xam nga lu tax man mënu ma gëm parce que vraiment ñun ay naatangoo lañ. commerce artisanat. yaa ngi dégg mais man gis naa ne vraiment yéen seen bët dafa tuuti. nga baal ma ci waxin bi. parce que lu tax ma ne seen bët dafa tuuti yéen jàpp ngeen ne blouse scolaire yi rek. ci ngeen war a sukkandiku pour am accès à la commande publique alors que commande publique li ci intéressé tailleur yi. su fekkee juumuma ëpp na téeméeri yoon ay blouse scolaire parce que blouse scolaire mu ngi door a commencé donc foofu vraiment li ma leen di ñaan di leen ko étant ay collaborateurs mooy que ngeen xoolaat seen doxalin ak autorités yi nga xamante ne ñoom ngeen jëflante mhm. parce que le ministre euh, Anne bu fekkee ñu ngi fàttaliku je le dis pas méchamment mais il a été épinglé ci coude bi mu ko yore te le problème principal bon est-ce que étape boobu. non mun nañ ci wax. waaw waaw parce que bi la. c'est intéressant dëgg la mais non les antécédents ñu sauter mais le problème lu tax ma bëgg a wax loolu. mooy que bu fekkee ne dafa jógee ci ministre sàngam dem ci ministre délégué dem ci benn euh, direction mais loolu ñun ñu sommes tous des sénégalais képp koo jox benn marché dina am lu mu comp def ci poosam. jox keneen kooku comp def ci poosam kooku comp jox keneen kooku comp def ci poosam non non warul warul demee noonu daal waaw non warul deme noonu malheureusement c'est ah. pourquoi je le souligne ah. te noonu la demee étant de Sénégalais ñun xam nañu loolu képp koo xam ne nii jox nga ko fi marché da koy sous-traité fekk na am na lu mu ci am Ah léegi nag si noonu la demee. et vous du secteur informel vous vous l'acceptez. non attention man je parle du secteur artisanal. bien ah. vrai que ci kii bi la bokk c'est-à-dire damay étayer moom li muy wax rek monsieur Seck li mu wax. parce que bu fekkee ne jógee na ci ministère. dem ci euh, beneen beneen beneen ministère. dem ci direction. door a ñëw ci moom alors que munoon na jóge directement ci ministère bi ñëw ci ñoom bu boobaa y a manque à boo xam ne li ko indi mooy loxo yi mu ci diggante bi. te loxo bu mu circuler ku ci ne am nga ci intérêt boo xam ne dangay fexe noo ko jëlee def sa poos mhm. du nekk lu neex a feeñal nag mais ñun étant tous sénégal sénégalais ñu ñu xoolante bët ci biir bët koo fi jox marché day am loo xam da koy jël door ci sous-traité keneen mais loolu pour man jaru ko te bu fekkee ne monsieur Seck ñoom dem nañu ba ngeen de déniché yooyu comme ni nga wax ci 20 blouses alors que de la une la 10 blouses nga ne ko soxla am monsieur 10 blouses ko lu la fekk nga xam ne loolu la yàlla dogal